asalaamaaleykum adduna bi ñu ngi sant ñëpp di am mbégte ak kontaante di nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa ak sa sant di wax waa adduna man nag maa ngi tudd Souleymane Ba PDG groupe seen Média rawatina li ngeen gën a taamu mooy senclic.com maa ngi invité sénégalais yi ñoom ñëpp à ce que ñu veille suivre ci li nga xamante ne man maa ngi koy def mooy lan euh, raxas samay loxo pour éviter coronavirus gis ngeen ni may raxas sama loxo yi. damay jël suma saabu daal di bërëng sama loxo bomb ba set set wecc wecc wecc wecc ba pare ma laayandee dama koy def saa su nekk saa su may génn dama koy def su may duggaat dama koy def parce que Sénégal dañuy aadawoo xaritoo ak àndandoo ak ak dëkkandoo di demalante ak dikkatante te feebar bi jombul kenn mën na daj ku nekk ci àdduna fu nekk mën nga ko wàllu xale amul mag amul sëriñ kon nañ ci moytu bu baax a baax ñuy def li nga xamante ne ni moom la ñu suñu ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr wax ba pare ñuy raxas suñu xaaru yokku cet gi di éviter dajaloo gi loolu daal laa ne woon naa nañ ko def Sénégal ñu ànd xeex coronavirus ñun ñëpp asalaamaaleykum léegi